wax je pense que les gens de Pastef sont mieux placés pour yenn yi ñu wax ci parce que voilà je ne suis pas de Pastef mais li ma la mën a wax encore une fois parce que yaa ngi wax les postures de l'opposant Ousmane Sonko man en tant que qu'observateur de loin moi j'ai vu Ousmane Sonko à ses début et j'ai vu Ousmane Sonko maintenant. et qu'est-ce que vous en pensez. c'est quoi c'est et à chaque fois que man ñu interpellé ma ci ce que je dis mooy. Euh, Macky moo créé un monstre parce que et, et parfois même les gens me disent mais son discours il est violent man damay ne Euh, je me garde de critiquer son discours parce que j'ai pas vécu ce que Ousmane Sonko a vécu parce que Ousmane Sonko euh, toute sa toute sa trajectoire politique n'a été que violence d'abord sur lui en s'engageant commencer impôts et domaines ñu radier ko c'est violent après tout ce qu'il y eu après ce dossier là gis nga fi mu mujjee tey mooy le dossier euh, Sweet Beauté où on parle de viol où on parle de menace de mort et aujourd'hui avec ce verdict bidon sur xawma corruption de jeunesse donc moi je me garde vraiment de de critiquer sa posture parce que je l'ai vu j'ai vu Ousmane Sonko à ses débuts yow sax gis nga ko il n'était pas comme ça mais à force à force à force gis nee nañu sa doom sax à force de le taper di ko taper day développer ay capacité de résilience yi nga xamante ni eh, wolof yi la léeg ñu woowee ko dërkis ak yooyu donc Ousmane Sonko a subi beaucoup de violence mais boo jëlee boo jëlee Ousmane Sonko 2014 ba 2019 hmm. euh, c'était une 2014 ce fut une révélation il a vraiment apporté du baume dans le dans le dans le cœur des Sénégalais qui étaient avides de débats politiques économique hmm. c'était un changement radical un changement de paradigme à l'époque on avait euh, PDS APR ñu ñuy bëgg a rey trac trac trac seen problème yooyu ñu jékki-jékki y a quelqu'un qui émerge et tous les médias se dirigent vers lui parce que il a rafraîchi le débat mu nekk ci loolu nekk ci débat économique bi am une posture très exemplaire à l'Assemblée nationale dugg assemblée avec trente mille voix ñenn ñi di ko mokkee deux mille dix-neuf sénégalais yi def ko mu nekk troisième et pourtant fekk na fi ay pas yu fi yàgg xam lan moo ko ko valoir c'était sa posture c'était le débat une posture pacifique ils ont subi des menaces à l'époque ils ont subi des agressions à l'époque que ce soit morale ou parfois même physique mais ils ont tenu dans le discours le Ousmane Sonko bi dérivé c'est le Ousmane Sonko de 2020 à nos à nos à nos à nos jours Et c'est depuis ce jour-là que certains commencent à avoir peur, que certains commencent à, à, à, à douter. Est-ce qu'au nom d'un combat politique, ou alors au nom de, de l'adversité politique, est-ce qu'on peut accepter que si un citoyen dit, dit, dit dériver ba di bëgg ba di ba di duggal ci xelu nit ñi ne. y' a possibilité euh, de mettre un terme à l'ordre constitutionnel. am na li nga xamante ne est ce que loolu yéen yéen mouvement société civile yi est ce que yéen war ngeen légitimer loolu. mun a munoo fekk borom doole bu am un tas de muscles di taper sur un gamin boo xamante ni moom moo ko ëpp doole ngay naan ni ngay jooyee baaxut da ngay naan mag.